parce que sénégalais dañu bëgg jiko tay mu ñor tay ñu donc depuis 2004 biñu créé la petite catégorie tout le monde disait que nous sommes dem parce que dans la sous-région guinéen malien ñoo ñu ëpp doole dañuy fraude dañuy nangam nangam mais je disais souvent à force de travail xalé ak mag amuñu différence ci football xalé football moo koy def donc su xalé yi taxawee am ligue professionnelle boo xam mu ngi leen encadrer encadré yi ngeen gis ñu ngi à un niveau supérieur que di mag donc amatuñ argument bobu aujourd'hui que ce soit les cadres dem nañ Coupe d'Afrique que ce soit les juniors ñu ngi pour le troisième fois en Coupe du Monde. une finale mais il faut quand même ñu fexé ba pour bi nak parce que tant que gagné l'étoile étoile bi nekk sa maillot bi day am lo xamné day parce que accompagnement bobu rek mo manqué pour que Sénégal mën gagner. surtout dans les commissions de jeunes ñu sentons que ñu top équipe bu mag A bi ñu leen au moins totalement mais au moins la moitié ñu ngi leen koy jox